bëggoon rek jox ko mu nuyoo présenté wu ñu door a wëyal laaj yi. asalaamaaleykum euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen euh, di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, bërëb bi ñu toog mooy case de santé wu Naydé Mbacké case de santé soxna Astou Boury la tudd man maa ngi tudd docteur Mame Diarra Mbacké médecin la Euh, léegi activité bi moom dañ koy amal man maay bokk si ñu koy organiser euh, at mu nekk ci kii bi ci màggal gi. macha allah Mbacke bala soxna maam Diarra bëggoon nañoo xam nag laaj bu njëkk bi mooy initiative bi fan la jóge ak lu waral ngeen di taxawal lu mel nii ci bis bi. waa initiative bi mi ngi jóge ci ndawu daayira Salihina mooy daayira wu taalibe wu sëñ Moustapha Mbacke Asuburi initiative bi ci ñun la jóge man ci daayira bi laa bokk. ci njabootu sëñ bi laa bokk euh, bi ñu liñ ko liñ ko tax a def nag boobu biñ koy def boobu kaas bi sax newu fi nag boobu ñu ngi ko doon defee ci daara ji boobu dañoo seetoon ba seet ba xam ne fii amul woon sax case de santé amul woon benn jumtuwaay wala benn bërëbu fajukaay euh, muy nay de ak li ko wër léegi liñ ci jublu woon mooy ci màggal gi ginnaaw ba nit ñi dañ fiy daje waa dëkk bi dañ fiy ne ak ñi dëkk ci ci euh, dëkk yu jege yooyu euh, dañ fi ñëw tamit di fi daje taalibeem yi di fi daje dañ dëkk Touba ñu ne woon baax na ci bërëb bis yu mel ni ñu ci xaw a joxe suñ participation te niñ mën a def mooy euh, def loo xam ne dina mën a am njeexital ci dundu nit ki muy mu di mu di ci wérgu yaramam wala ci éducation léegi nag ñun bunt bii nag lañ amoon ci buntu wér-gu-yaram ginnaaw ba nag yàlla dafa dogal man ci loolu laay yëngu euh, moo taxoon ñu amoon idée bi ñu ñu ñu ndaxawal ko taxawal ko première édition bi mu nekkoon 2017 léegi boobaak léegi gis nañ ni évolution am na macha allah euh, ba ci ginnaaw bi ci lañ fi ci la fi euh, soxna Binta Ba bokk ci njabootu sëñ bi moom moo taxawaloon kaas bi. Euh, donc bi mu ko fi taxawalee tamit at yi ci topp ñu ne ginnaaw ba case bi ngi fi ah, lii gën a dundal tamit case bu mel nii mooy ñu fi amee euh, consultation yi ndax ci daara ji sax lañ ko daan defee ndaay bi fi case bi nekkee ba léegi wax dëgg yàlla fii lañ koy defee su ko defee mu gën a jàppandi gën a dundal case bi te it euh, gën a yombal suñu liggéey. macha allah jëfal nañ leen bu baax ci taxawaay yu am solo yooyu comme ni nga ko waxee mel na ne ba ngeen ko dooree yàgg na jaajëfal it soxna maam Binta comme ni nga ko waxee ci ay taxawaayam euh, ban observation ngay def rek ci li nga gis tey ci nit ñi ni ñu ñëwee ndax bari na ñoo xam ne teew nañ fi bari na sax ñoo xam ne xëy na ñëw nañ fi te xëy na ñu ci màggal gi waaye dañoo gis ne activité bi lu leen ñor la ñu dagg seen i te ñëw ban observation ga def ci loolu. waaw observation bi ma ciy def mooy euh, ginnaaw biñ ci sante yàlla ndax euh, kii am. Euh, mbégte weesuwul di yëngu ci benn activité te gis njariñam te gis ni nit ñi bëgg nañ ko gis ni nit ñi di ko laaj ginnaaw bi toog nañ fi ñaari at bi jamonoy mbas mi mu amee toog nañ fi ñaari at yoo xam ne amaluñ ko te booba gis nañ nit ñi di ko laajte loolu moo waral ren ñu def lépp ñu bàyyi lépp lu ñu amoon rek def lépp euh, ak ci taxawaayu surtout soxna Binta Ba euh, mu jaarale ko ci hôpital Touba Euh, ak euh, ci médecin chef de district soxna euh, docteur Ndeye Maguette moom tamit taxawal nañu taxa taxa taxawaay na taxawa taxaw na fi taxawaayu médecin chef district Touba ndax xam na ni xëy na moom tamit jàpp na ni ñun moom la ñuy jàppale ndax xëy na yii nii ci ci moom la aju. waaw mais ginnaaw ba nguur moom mënul matale lépp ñun population bi ñun ñoo war di jug léeg-léegi luñ mën a def rek ñu def ko léegi ñun nag euh, affluence biñ ci gis gis nit ñi niñ koy laajee ñun daf ñuy wan rek ni que euh, soxla yi mi ngi fi nit ñi bëgg nañ faju dañ dul am xëy na ñu dem wala ñu am moyen dem faju ji ndax xëy na fii li ñuy dégg ni dañuy maye garab yi loolu moo waral ñu fii gën a ñëw waaw xëy na buñ ñëwoon ñu leen di jaay garab yi mën naa jafeem wala duñ ñëw mais liñ dégg ni dañ leen di may garab yi dañ leen di consulter de duñ fay loolu moo waral ñëw bi kon nit ñi bëgg nañ faju waaye dañ dul am xëy na euh, moyen yuñ ko defee te loolu ah, euh, ñu ngi ci ñaaxwaat kilifa yi bu baax a baax Euh, di ci di ci ñaaxaat kilifa yi ñu gën a dolli seen seen ay euh, jumtuwaay gën a gën a gën a taxawu askan wi tamit ci lu waa jëm ci wàllu weer gu yaram bu ñu mënoon a xam bu ñu bëggoon a xam tamit situation bi ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne gis ngeen ko fi nemmeeku ngeen ko surtout ci nit ñi lan lañ jàpp ne moo ci ëpp ak ban message ngay joxe ci ñu mën a fagaru ngir yu mel noonu mën leen léegi euh, jafe-jafe yi moom biñ ci gën a gën a gën a gën a ràññee mooy euh, feebaru tension tension buy yéeg euh, fii tey at mu ne sax dañ koo seetlu te at mu nekk da ngay gis nit ñi di gën a ñëw di gën a feebar boobu ñu ko ciy gën a gis donc loolu day wane rek ni que nit ñi xëy na dundin gi ñuy dundee moo moo moo xaw a moo waral loolu Euh, ndaxte feebaru hypertension moom ku ko ku ko dégg ak ku ko xam xam nga ni euh, nit ki ni muy dundeek ni muy ni muy ni muy lekkee ak ni muy yëngatoo loolu def si am njeexital bu baax waa def si aju donc euh, loolu xëy na ñun loolu mooy premier message biñ ci am également dañ ci dañ ci seddu ni nit ñi ñu ci bëri dañuy ñëw fii xamuñu ko woon dañuy ñëw duñ yëg sax ni seen tension yéeg na te loolu moom ñun liñ ci jàngal mooy Euh, bu fekkee ni nit ki ñëw na fekk tension am yëg na yëg bu bëree bëri te yëgu ko sax ci yaramam ça veut dire que yàgg naa yëg te xamu ko loolu tamit dañ ko ci seetlu euh, seetlu nañ tamit nit ñoo xam ne xam nañ ne que am nañ tension waaye biñ leen joxee garab ci kër docteur jël nañ dañ leen ko benn yoon ñaari yoon daal di tane rek daal di bàyyi te loolu moom moo ci yées loolu moom moo yées ci ci ci ci feebaru hypertension donc ñu ngi ci gën a ñaaxaat nit ñi rek euh, ñuy gën cee góorlu ñi nga xam ne tey jii bis bii moo tax ñu xam ne am nañ feebar bi ngir yàlla ñu dem euh, faju ji kër docteur ndax lii moom dépistage la rek ndax benn garab biñ lay jox. nga xam ne du la matal sax xëy na weer ndax ñun buñ ko amoon jox la ko toujours waaye mënul nekk donc euh, yaa ci war a farlu rek dem faju ji ndax faju la la la laaj. ci feebar yu mel noonu ah mooy xanaa di di xoolaat suñ suñuy lekkin rek xam ñun moom suñ mbokku bawal bawal moom wax dëgg yàlla euh, liñ sori géej tax. Euh, su ko defee nag euh, maanaam ndawalu ay ndawalu euh, nag ndawalu kii ay gàtt yooyu moom lañuy faral di gën di jëfandikoo. te loolu moom moom moom moom moo ci yées moom ak ñàkk yëngatu bu bari bi it am na ci te xëy na loolu li koy waral mooy environnement bi ñu nekk tamit ndax événement yi day bari donc loolu mooy mooy mooy gën a tax xëy na euh, loolu moo gën leen a yomb. beneen bi mooy euh, tey innovation bi ñu indi woon tamit euh, ñëwaguma ci woon mooy dépistage wu cancer du col de l'utérus waaw. voilà ma ngoog waaw dañoo ànd ak benn équipe bu benn infirmière ak ay sage femme ñoo xam ne ci yooyu la ñuy yëngu donc biñ ñëwee fii ñu leen ñuy ñaax jigéen ñi expliquer leen lan mooy feebar bi ndax feebar bu bon la di di def ay njombe yu bare bare bare di yóbbu ay ay ay jigéen maara day taali te duñ ko xam wala balaa ñu koy xam muy trop tard te loolu bañ loolu moo tax ñu ñu ñu indaale loolu te incha allahu ginnaaw ba tey def na yàlla mooy yàlla def na tey mooy première fois buñ ko def ñaan nañ yàlla bu ñu amee yeneen édition tamit di ko gën a développer wala di indi yeneen aussi yeneen dépistage yeneen feebar luñ ci am rek mën koo indi incha allah pour mën koo baaxe askan bi. jërëjëf soxna Diarra la téye lu yàgg xam naa dañuy taxawlu foofu rek jox la nga def kàddu yu mujj ak loo xam ne xëy na bëggoon nga ko wax te samay laaj eggu ci nga jottali waale ko. waaw kàddu yu mujj yi moom mooy euh, sant leen rek sant leen ci taxawaay bi. Euh, yéen ñi nga xam ne yéenay yéenay tas lépp luy luy luy xibaar lu jëm ci kër gi ci ci kër sëñ Modou Moustapha euh, di sant tamit képp ku jàpp ci bis bi ñu ngi lay sant ndax am na ci ñoo xam ne seen ñaq lañ ci joxe am ñoo xam ne seen alal lañ ci joxe te bari na eh, bari na ñoo xam ne seen alal lañ ci def ndax ñun ñii rek mënu mënu mënu luñ dara ñun ne yàlla dafa dagal ay ndaw nañ def nañ ci luñ mën waaye bu doon ñun kase du sotti eh, am ci ñoo xam ne rek am nañ ci taxawaay tamit bu am solo ñu ci mel ni sànq wax naa ko soxna Binta Ba madame Mbacke moom tamit amal na ci am na ci taxawaay bu am solo am solo waaw ndax euh, lépp lu jëm ci wàllu médecin yi xëy na moom moo ko daanaka moom moo di jënt yëpp euh, ci ci turam lañ fi ñëwee. hôpital bi mu jiite tamit hôpital Ndamatou tamit joxe nañ ay euh, ay garab may euh, baaxee ñu ko participer ko ci bis bi euh, docteur Ndeye Maguette tamit mu euh, médecin chef bu district Touba moom tamit wax dëgg yàlla biñ ko ko yëgalee moom dana ma lépp loo leen soxla rek ci personnel wax leen ma ko defee ñun ñu jox leen ko donc ñun moom tamit yónnee nañu ay médecin ci turam ñoo xam ne biñ ñëwee sànq sax ñu naan ñu dimbali leen ñu bu leen ñu jox dara ndax ñun liggéeyal sëñ bi moo ñu fi tax a ñëw waaw donc euh, wax dëgg yàlla euh, ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla tamit édition yi di ñëw gën a am doole bii nii euh, ñu ñu gën koo mën su ko defee ñu mën a def loo xam ne dina ëpp solo di incha allah. soxna Diarra ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax kon mbokki Wilaya TV ñoo ngi leen di jaajëfal loolu la ñu indi woon loolu la ñu jël si woon fii ci hôpital bi seqoon ko ak soxna euh, Mariama Jaaratullahi di bokk ci njabootu sëriñ bi waaye bokk ci ñi nga xam ne ñoo euh, initié liggéey bu am solo bi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah